bisimilah mu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj imaam joo xam ne dafa doon julli ca rakk bu mujj ba nag mu sujoot benn sujoot mel ne ku tàmbalee taaya fàtte beneen sujoot ba ñu sàbbaal ko mu daal di dolli beneen sujoot taaya sëlmal daal di def baax de salaam am ci mbooloo mi nag ñu ne ko déedéet waroo woon a def noonu da ngaa waroon andiwaat ab rakk nit ñi de dañoo ñeme wax loo xam ne xamuñ ca dara imam bi noonu mu def noonu moo wér noonu rek la war a def amu amul benn ràkk bu mu war a andi comme moom mi ngi toog sëlmal amagut dara amagut mi ngi taaye defe ne sujjoot na ñu sabal ko wan na ko des na sujjoot dong lay def day sëgg dem sujjooti taaye sëlmal bu noppee def baax salaam léeg-léeg eh, jàkka yi da ngay gis koo xam day sàbbal nit di ci sonn te fekk moom moo xamul la xew te ñi dañoo dëgër fit ci xam-xam xamul dara xamul li muy wax da cay dëgër fit goo xam ne da ngay ne sax moo raw ñëpp kon imaam ji noonu mu def noonu la ñooñu loolu ñuy wax du wax ju wér wurta andi ab rakk bu fekkoon ne daa sëlmal kon su boobaa mu sujjoot mënatu koo defar waaye daa war a jóg indiwaat benn rakk waaye comme sëlmalul nag sujjoot dong lay indi taaye def ba'da salaam wallahu a'lam laaju mbokk mi wala soxna la mu ne góor goo xam ne day nëbbu soxnaam waaw xam nga liy cosaan ci ab ànd day mooy kenn ku ci nekk di mottalante sa moroom muy jigéen nga muy góor ga li ñuy tuddee complicité kenn ku ci nekk day mottali sa morom euh, nga xam ne say mbóot sa soxna nga koy wax sa soxna moom it di lay wax ay mbiram loolu mooy cosaan lool nag dañ ko sàkku ci góor gi sàkku ci jigéen ji doonte du far force nag du far man ngaa am soxna te wóolu woo ko su boobaa kon man ko ko làq kon du ko nag sa soxna rek faaw da koy wax am na jigéen ñoo xam ne boo leen waxee sa secret doo ko defati ñooñu matuñu ko am na góor ñoo xam ne tamit même chose euh, booy jël say mbir di leen ko wax boo liggéey doo ko defati ndax loo leen wax ñu dem nettali ko kon loolu wàllu jikko la waaye nag la gën mooy buñ mënee ànd ànd bu rafet ànd boo xam ne dana àgg ci ku doon dénk xaalis sax sa morom ngay wóolu ku yor sa secret sa morom ngay wóolu loola moo gën rafet ànd loolu lépp nag duñ ne faaw dañuy dañuy dañuy forcer nit ki moom daal say mbir moom ka nga wóolu bu fekkee nit ki daa takk soxna te soxna sa yorut jikko yam taamu mën na ko bañ a yëgal ay yenn mbiram jigéen nit mën naa bañ a yëgal jëkkëram bu fekkee gis na ne yeewu ko mën na ko bañ a yëgal yenn yi eh, yoo xam ne xam na ne bu ko ko yëgalee du ca am lu gën am nettalikat la wala eh, yàqkat la wala leneen waaye rek lan gënoon daal mooy ñu déggoo déggoo koo xam ne dañuy yëgalante am maa bu fekkee faalul soxna si ak nangam loolu nag ëpp na soxna moom jigéen moom bu ngeen àndee faaw da koy bàyyi xel di dégloonte di waxtaan xëy na nag bu fekkee yow wóolu ko am am na jikko yoo taamut ca moom wala yoo xam ne taxut nga mën koo def confiance bu la neexee mën ko ko bañ def confiance ci yenn ya waaye nag bul ko ko won nekk ci kër gi mel ne nekkoo fi nga xam ne daanaka daal euh, dañuy xam ne kii soxna la kii jabar la képp rek waaye benn relation amu leen ko loolu nag baaxul loolu nag la koy waral faaw ñu lijjanti ba xam lan moo tax lu waral loolu jigéen ja lu mu def ndax daa matul rôle am wala ndax góor ga daa am lu ko metti ci moom wala góor ga moo compliqué rek yooyu nag mbirum famille la ñuy waxtaan lay doon ñaaw njortu lu ci lislaam wax a ah, xanaa bon lool suñ borom nee na inna baada dhanni ism yenn ñaaw njort yi sax bakkaar lay doon koo xam ne loo gis rek defe na lu ñaaw la loolu deesu ko def julli bi dañuy bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lim jàngale mooy loo gis lum ñaaw ñaaw yow rafet lu ko sa xel neen xam naa ne euh, lii rek la ci jublu maanaam saa mooy gis nga móor jóg ànd ak jigéen euh, taxaw ca bopp koñ ba wala mu taxaw ca lëndam ga nga romb ko bul wax ne Mor Diop mi moo ñàkk jom moo mën a mooy yàlla nangam nangam wala diggéen ji nangam déedéet ne la eh, boo demee de xam naa Mor Diop kii soxnaam la indi sa mu rafet ndax seytaane da lay xel mu bon ah ñii day mooy yàlla lañ nangam déedéet bàyyil xel moomu indil nga ne boo demee soxnaam la bu fekkee ne eh, da nga xamoon ne moom yi amul soxna nga ne xam naa boo demee daa takk soxna te yëgaluma ko bu fekkee leer na la amul soxna neel boo demee am bu jigéen la moom daal del indi daal loo xam ne day tax nga mën koo seetal waaye bul indi loo xam ne day tax day tax nga mën koo taqal kon loolu la ab jullit di mel lawla lawla id samictumuuhu qultum maa yakunu maa yakunu lana an natakallama bi hada subhanak hada buhtaanun azim suñ borom nee na buñ leen nettali ay rumeur lu ñaaw ci nit ki lu tee ngeen rafet njort ah kooku di wax xamuñ ci moom lu bon ñun daal loolu gëmaguñ ko ñun daal loolu duñ ko gëm suñ mbokk jullit moom daal loo rafet rek lañ xam ci moom boo dee ba wér na moo ko def au lieu nga toog naan daa bon ak Alioune Badara lim def déedéet neel ndeysaan Alioune Badara de xam naa daa juum rek ni moom wax dëgg yàlla daana jëf-jëf ju baax yàlla na ko yàlla jégal musi euh, jëf ji ñaaw ji mu def wax dëgg yàlla au lieu nga nekk di ko waxal lu ñaaw wax waxal ko lu rafet rek ndax xamal ko ko lu rafet ak ak benn la sax wallahu taala alamu bismillah mu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj ne daa am ku ñëw laaj ko ab rajo mu ne ko man de awuma ko ne mu ne ko kon wutal ma ko ñu waxtaan nee na waa ji wut ko ni commerçant yi wutee rek woote téléphone ñu ne ko am na barab nangam 2000 lay jar mu daal di laaj kooka 3000 incha allah war ko ko jëli li mu laaj ndax dagan na waaw lii tax mu dagan de mooy ngeen bañ a jaayante mooy bul na ko am naa ko mel ne ku ko koy jaay mel ne ku ko am xanaa day daal di fay njaay ma fasu déedéet li mooy nga ne ko ah mën naa ko wuti ci nangam ci prix nangam mën naa la ko wutali ci prix 3000 suba mun daga na wala mille bu fekkee nee na d'accord na incha allah nga dem wuti ko boo ñëwee doo ko koy jaay waaye di ko jaay ba mu façon nag dafekk ëmmagoo ko loolu daal la ñuy bañ wallahu taala mu sawaaba laaj bi ci tege mbokk mi laaj waxtu fajar kañ lañ ko war a julli maanaam fajar kañ lañ ko war a julli mooy bu ñu salaatoo fekkee ku nekk Sénégal la nodd gu mujj googu ñuy noot naan asalaatu xayru mina nawm li fekk jotut boo julee fajar fajar ga baaxut naafila rek lay doon waaye du nekk fajar bu fekkee nag ku nekk ay bitim réew bu xoolee montar yi fa am xeetu application yi donte application yi lay lekk mu xaw a a ay jafe-jafe waaye comme moom lañ am di ci sukkandiku kon bay boobu mu xool ko rek bay boobu muy xool application waxtu bi ñu ko wax ne ko mooy waxtu suba suba ak fajar wenn waxtu la da ngay gis ñoo xam dañuy yeewu rek tàmbalee julli ñaar rakkee fajar déedéet loolu njuumte la boo ko defee du baax bala ngaa mën a julli ñaari rakkay fajar day fekk waxtu suba jot suba ak fajar du ñaari amuñu ñaari waxtu wenn waxtu rek la li fekk suba jotagut fajar jotagut kon xaaral ba ñu noddu noddug salaatu ngay doog a julli ñaari rakkay fajar buñ ko noddagut nag mën ngaa def say naafila bu la neexee waaye nag su boobaa du tudd fajar moom déedéet subaa du tudd ñaari rakkay fajar faaw bu fajar jotee bu julli suba jotee war ngaa eh, defaat ñaari rakka def yéen a ci fajar doog a julli ñaari rakkay suba kon ñooñu nga xam ne mbokk mi day laaj ne dañuy teele bu ñu yeewoo rek dem jàpp ba noppi day ñëw rek julli ñaar rakkee fajar bu dee ñaar rakkee fajar lañ ci jublu <clears throat> baaxagut <clears throat> faaw rek dañoo dañuy xaar ba julli suba jot mook suba ñoo bokk wenn waxtu bu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj nee na day gis ñoo xam ne dañuy nekk ci jàkka ji ñu liqaamal imaam ñu toog di wérdu ba imam daanaka tam ba tàmbalee jàng bay waajaru ko daanaka ñuy doog dagg wérdu ñoo bokk julli gi loolu li muy tekk mooy ñàkk a xam rek ñàkk a xam la ndax euh, wérdu wérdu wa ñuy def dañ caa bëgg tuyaaba te tuyaaba ja ca julli ga la ëppee même bu fekkee sax doo tardé balaa imaam rukkoo da fekk nga noppi ba tey baaxut maanaam yaa ngi jaaye yaa ngi jënde euh, yaa ngi fekk loo xam ne mënoon nga ca am milliard nga jënd ko weñ gu ñuul noonu la mel wérdu wi ngay def wérdu wum mën a doon lum baax baax baax bu imam xasee ba kabar rek nga ànd imam gaaw kabar ci saasa moo ëpp tuyaa ba wérdu wum mën a doon téeméeri milliards yoon kon ñoom dañoo defee ne wérdu bi daal àgg na foo xam ne comme imam du ma raw naaga déedéet maanaam imam boo ca rawee benn seconde benn seconde boobu li nga ci perte ci tuyaaba moo ëpp doole nga wérdu woo mën a dégg fuuf bokkuñu sax ndax li jaamu yàlla la wax yàlla moo ko santaane ndigalul suñu borom la du caaxaan benn seconde boo taxaw di julli rek amul génn naafila gum tollool wala wenn wér bu muy tollool kon nag ñooñu loolu lañ xamut kon dañ doon wut tuyaaba ba far seen seen seen yelwaan këpp seen yelwaan këpp ñi ngi amee ci wérdu wi bu fekkee wérdu wi weñ ku ñuul lañ leen ciy fayee kon benn seconde ba leen raw ci julli ga ab jamaa la woon ñu tardé ko kon nag nekkul na rek euh, boo wérdu rek da naan bala ñëw rukkoo dinaa ko fekkee tax nga sañ ko déedéet loo mën a jàpp di ko sëñ Tuubaa li mu wax nee julli na yàq lu mu la fekk na ko yàq waaye moom bu ko dara yàq kon nag bu ñu bu ñuy liqaam rek gaawal bàyyi la ngay def wala gën gaa gën gaa euh, yeex bu imam ne allahu akbar bàyyi la ngay def ne allahu akbar boo noppee wér yi moom du weesu waaye julli luñ la ci rawee lu néew néew rek loolu tuyaaba joo perte la kon nag ka nga xam ne moom ba imam kàbbaree la kàbbar nga ne fekk na fi imam di jàng faatiya du yem bul defee ne mukk yem nag yow mi ñëw fekk imam di jàng saar mukk xaaju leen a yem loo ci mën a am ci tuyaaba perte nga tuyaaba joo xam ne mën na ko euh, ful ful goo xam ne kenn xamul nu mu toll kon nag lu nit mën a def booy wér lu mën a doon bu ñu taxawal julli bàyyil loolu lépp dem ànd ak imam teel a bokk ca kabar ga loo gën a yéex ci kàbbar bi rek yaa ngi pert kon nag yaa ngi toog di wéru yaakaar ne li ngay def mi ngi am njariñ fekk yaa ngi yaa ngi def musiba wallahu aalamu bu dee laaj bi nga xam ne moo ci tege mbokk mi laaj alquranul karim ni ko suñ boroom tegalee euh, nga xam ne mawduwaat yi ci nekk yi muy nettali léeg day nettali dara ba mu yàgg mu arrêté ko foofu dem ci weneen saar mottali ko foofu waaye yooyu am na ci yoo xam ne mbirum suñ borom la am na ci yoo xam ne bi ñuy tegale bi ñuy defar alquran moom noonu lañ ko tegalee wala kuli al lum ci mën a doon rek ci ndigal la tegu euh, xëy na nag jotaay bi mayewut ñuy leeral loolu alquran moom daal xóot maanaa ya tegaloo ya yeen xikma lañ ci war a jàng loolu moom neexut a tontu ci waawak dét lañ ci mën a xam daal mooy loo gis ci alxuraan rek donte ab tomb la rek am na xikma bu ci nekk boo xam ne daanaka mat na mat na aw waxtaan mat na aw waxtaan alxuraan ni ko suñ borom doon wàcce mu jaman la woon mooy dara day xew suñ borom leeral loola daal di jàll boo liggéey leneen xew xam kon xew-xew yi du bokk ci misaal bu fekkee tey mbirum politique moo xew bu leeralee wàllu politique suba wàllu économie xew mu leeral wàllu économie kon day mel ne politique bi day taqaloo ak économie bi ëllëg politique mën naa xewaat mu waxaat ci politique su boobaa nag kon njëkkoon naa wax ci politique économie jaar na ci diggante bi tey mi waat ci politique boo léegee mu jël boo léegee mu jël histoire wala mu jël leneen kon li mu wàcc ci actualité loolooy tax léeg-léeg lii am fii lee am fee léeg-léeg mu nettali yonent yàlla Moussa nettali bu gàtt boo xam day tënku fekk da doon tudd yonent yu bari ba tuddaale Moussa mu tënk ko léeg nag Moussa da koy tax a jóg rek nga xam ne leeral mbiri Moussa rek moo ko tax a jóg nekk yenn saar yi ne daanaka la ciy nettali Moussa nettali bu gudd nga xam ne day tàmbali rek leeral Moussa ba mu juddoo ba mu màggee bañ koy yónnee lu mel ne sóoratu xasas yi ak yu mel noonu nga xam ne day mel ne jëmmi saar moom Moussa moo ci doole dañoo teg dañoo dañoo sard xistaam gis nga lu mel ne yonent yàlla Yuusufa daanaka dañoo jël xistaam bépp bépp bi mu ma bi mu doonee gone ba nam faatoo lépp yàlla tegal ko ci wenn saar daanaka moom rek la yàlla def ci noonu sax ci ab yonant moom dong ci alxuraan moom la yàlla jël xistaam tegalee ko tegalee bu jekk boobu yi nga xam ne daa tàmbali rek ba mu nekkee gone ba ba mu faatoo yëpp mu def ko wenn saar yeneen yonant yëpp day wax fii dara ëllëg mu wax fee ëllëg mu wax fee loolu nag bëri na ay secret bëri na ay sirru bëri na ay njariñ waaye nag mëneesu koo leeral ci jotaay bi waaye daal li ma la mën a wax rek mooy actualité bi mu topp loolu da ciy feeñ nga xam ne lu xew xew tey da du lay xew suba wax dara lu xaw a gàtt ñu dem ba jamono mu xewaat mu gën koo yaatal wax lu mu leeral ci lu mu leeralu toon ca bële wax rek lu mu ci mën a doon rek ay kiimaane alxuraan la yoo xam ne ña yëngatu ci wàllu balaaxa alxuraan ak ay xeeti waxinam ñoom dañ cee jommi xam nañ ne ni ni mu tegtaloo ak waxinu ni mu rafetee tartib bu jekk bi loola du nekk yi fi doomu aadama yi fi suñ borom rek la wallahu taala alam bismillahi arrahmani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 dimbali ko sunu borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moom rek mooy aje dimbalee ji ci jéem a tontu laaji fi mbokk yi di rotal ci yoonu al imaamu Malik ak déggiinu yenn ci boroom xam-xam yi bu laaj bu njëkk bi mbokk mi laaj luy àtte boroom kër goo xam ne soxnaam day def lu lislaam di tere ci wàllu jokk karaw. moo xam meesu ya moo xam greffage ya moo xam imaay ak yu ca aju te xëy na téréwu ko ko wala daal moo ko ca bàyyi defu ca defu ca yitte ngir mu arrêté waaw loolu day euh, lu mat a bàyyi xel la ndax day tardil nit yowmal am day dugg ci waqifuhum innahum mas'uluun wa yowmal xiyaam suñu borom subhaanahu wa taala daa am ñoo xam ne da leen a dénkoon ay responsabilité yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni woon moo ne kullukum raain wa kullukum masulun an raiya mu ne fa rajulu raain fi ahlihi wa huwa an raiyati ne ku ci nekk ab sàmm nga góor gu nekk ab sàmm nga ci ña nga yilif moo xam soxna la wala ak njaboot wala sa biir kër ab sàmm nga ca lépp lu fa nekk te jaaduwul lislaam di ko tere nga bàyyi ko ca noona wala defoo ca yitte su boobaa bu yowmal xayaamee suñ borom dañ la taxawloo waat buñ lijjantee say julleeg say woor ba noppi dañu xaarale nag ñu xool ba xam ndax sa waa kër ndax sa soxna lala lislaam satoon nga def ko defoon ko ko waa wala déet te bu fekkee defoo ko nag ah kon su boobaa doo mën a jàll yàlla nañ ci yàlla musal kon loolu day tardé nit ëllëg yowmal xayaam kon jigéen boo ko yoree ni nga koy sante mu lay toggal aka fóotal aka lu mel noonu noonu ko koy sante jaamu yàlla ndax togg ak fóot ak di bànneexu moom loolu bàyyi may sax daanaka mën nañ ko bàyyi may dañuy lekk bu lekk jotee dañuy sangu dañuy nelaw loolu jëfi bàyyi ma la buñ ne ab jullit rek lañ bëgg mooy am yeneen jikko yu ci nekk qualité dañ wax ne heure boo yàlla dogalee ñu boole la ak jigéen wala jigéen ñu boole ko ak borom këram buñ doxee ab diir rek ku nekk war ngaa yëg ak yokkute ci wàllu yàlla nga ne lii de yokk na ma ci wàllu yàlla am na lu ma jariñ am maa rek lekk naan solu ak bànneexu kii rek loolu nag day dellu ci yëfi bàyyi ma rek nag loolu moom bàyyi sax man nañ ko kon buñ ñu boolee dañoo bëgg ñu jariñante yokkante fa tolloon ci wàllu yàlla mu gën a yokk ndaw si biñ la koy may dara def nii di def ne waaye gis nañu bi mu sëysee léegi ma ngay muuru bàyyi na jokk karaw léegi dawut julli léegi gis nañ ko mu ngi julli nga di ca sonn ni nga xamee ne bu la fóotaloon sa yére euh, fóot mu baaxut wala mu paase sa yére lakk ko wala mu bu dee njóobee ni bu naajee yekk ab añ dong kër gi kenn du dégg danga ko kalaame danga dem seen kër bu la tere woon boppam coow li jóg waaw man sa kilifa laa tàmbali di wax nag li la yàlla may ay sañ-sañ yëpp nga di ko tari waaw toppatoo sa borom kër mooy tax ngeen am àjjana lu na nga tari ko waaye bu fekkee julliwut sa yu nekku ci kon day mel ne yow toppatoo wàllu yàlla ga li la daal mooy sa intérêt personnel loolu nag amul njariñ taxutoon ñi may jigéen góor bu ñu jël jigéen di la ko may dañoo bëggoon nga defar ko waaye bëgguñu woon rek nag ngay dem ci jëfi addunay kese wallahu taala alamu sawaaba bisimilah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj ndax naafila manes na koo tiimal waaw manes na koo tiimal waaye ñaar ñoo ko mën a tiimal mooy musaafir boo xam ne manqué na ndox wala boog xaadir koo xam ne sax du musaafir dëgg la mi ngi mi ngi ci dëkk bi waaye daa feebar bu mënta laal ndox waaw ñaari ñi moom mën nañ koo tiimal waaye alxaadiru saxiixu ki nga xam ne mi ngi ci dëkkam nga xam ne moom mi ngi ci dëkkam nekkul cib tukki ñaareel ba yarama wér na mën naa laal ndox xëy na daa amul ndox dong kooku moom mënta tiimal naafila wala li naflin aw li jumaatin wala janasatin lam tataayan fanqila ku wér péng moom mënta tiimal wér wér na péng te nekkul ci tukki mënta tiimal naafila jekk-jekk rek tiimal ñu ne ko looy def mu ne damaa bëgg a julli yoor yoor mukk loolu mu mënu ko mën naa la farata nag bu noppee jokk ca naafila kooku moom dagan na loolu nag mooy ci yoonu al imam malik ni sax boroom xam-xam moo am na ñoo xam ne nee ñu tiim ak jàpp ñooyam képp lépp lu jàpp man rek tiim man na ko su boobaa nag ñoom man ma des naa tiim def lépp wallahu alamu ci rek mbokk mi laaj kuy génne asaka ci ay pàkk ay terrain noo koy génne waa awalan dañuy njëkk a xool terrain yi nu mu demee ndax daa am ku jënd ay terrain di ci business am ku jënd terrain ngir fas yéene koo dëkke wala fas yéene koo dëkkal ak njabootam su boobaa kooku moom asaka du ci war aslan kon jënd ab terrain ngir bëgg koo tabax wala jëndal ko sa doom wala yu mel nga daal da nga ko bëgg a jëfandikoo kooku moom asaka waru ci bu dee da nga jënd na ngir business yi ne yow da ngay jël sa alal di ci jënd terrain eh, defaraat ko jaayaat jëndaat terrain eh, téye ko ba ci kanam bu xawee kii foofa am ay am tëli am nangam nga nga jaayaat di nga bu dee yow noonu ngay liggéeyee suba at mu jot moom dangay ngay xaymati booy génne asaka da ngay xaymawaale terrain ndax alal la ju tëdd moo nga dencoon alal ji banque ba ñooyam alal la ju tëdd ni koy xaymaa rek mooy dañuy xool foofa rek dañuy xool foofa xam nga loo gis am nañu am nañu ko xam am na ñoo xam ne wàllu terrain wàllu kër wàllu lu mën a doon buñ ko xoolee mën nañoo ne ah fii de xam naa ne tere yi du sori nangam xool ba xam est-ce am na tëli est-ce am na ndox ñu ne lii de ko ko doon jaay xam naa du sori nangam ñu xayma loola su boobaa nag nga génne loola asaka kon daal daa xaw a mel ne marchandise rek ba tey bu fekkee nag ba nga ko jëndee daanaka njëgee soppeekut mën ngaa xool la nga ko jëndee woon nga xayma loola génne ci asaka loolu nag ñu bari dañ ciy jum ñu bari dañuy defe ne téere moo asaka waru ci rek mut la xan noonu déedéet kon ku ku ciy bis otoog lu mën a doon bu fekkee da nga koy ngay jël sa xaalis di ko ci dugal yaa ngi yor sa 5 millions boo ñëw jënd ci ñaari oto 2 millions 500 2 millions 500 defaraat jaayaat nga yow noonu ngay liggéey booy génne asaka oto boobu yi da ko war a bàyyi xel da ko war a xayma waaye bu dee oto ba nag yow da koy war di ci liggéey kooku moom asaka du ci war wallahu aalamu bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj ndax dagan na nit di jël ay produit yoo xam ne day yokk yaramam wala da koy may yaram wala da koy jeexal loolu dañ koy laaj médecin yi ba xam baax na ci wérgu yaram wala déet bu ñu ne ci wérgu yaram incha allahu rabbi rek su boobaa nag day xaraam la ëpp nag mooy dañoo wax ne baaxul ci wérgu yaram laaj bi ci tege mbokk mi laaj ndax ak ma mënees na koo dugalaale ci wanag waa xeetu téere yi bu fekkee téere bu dagan a takk la awalan ndax am na téere yu daganut a takk nga xam ne dafa xaraam ab jullit ko takk mooy téere yi nga xam ne delluwut ci alxuraan ay yeneen la da dugg ci wàllu ak doo kooku mu takk gi moo daganut amaa bu dee loo xam ne nag turu yàlla la alxuraan wala lu ko nuru suba nee ñu boo ko ëwee rek incha allah dagan na ànd ak loolu lépp la gën nag mooy bañ koo dugalaale moo tax daal boroom xam-xam yi nga xam dañoo araamal takk téere mu laqan bu dee alxuraan lu mën a doon yu mel nii rek lañ ci wattandiku moo tax ñu ne ndax ñaar nit ñi ngir ñu sàmmonteeg yenn yi day jafe duñ ko def su boobaa nag ñoom ñu far ko tere rek mu jeex wallahu aalamu bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj ku doon julli ba mu yàgg am ko wax wax ju ñaaw mu ne astaghfirullah ngir jubloo wax ak kooka baat bu ñaaw ba mu wax di ko ci ayu mooy laaj luy àtte ba su boobaa day sujjoot baax da salaam ndax daa mel ne daa jubloo wax ak moom donte baatu bu astaghfirullah moom ndaa bokk ci eh, bokk na ci julli ki ndax lu mel ne boo doon boo sujjootee ba toog man allahumma ighfir li yooyu nga wax xeeru la waaye wax gam ko wax mel ne daa am kum jublo waxal nag ah su boobaa nag loola da koy sujjoot day mel ne rek ku wax lu bokkut lu bokkut ci julli ko wax waxta tayu ko rek donte am na ñu bu dee daa bokk ci jën ci salat kooku du waral sujjoot laaj bi tege mbokk mi laaj kuy julli naafila ndax sañ naa wax bismillahi rahmaani rahim waaw sañ na ko wax sañ na koo bàyyi lu mu ci def rek boppam la laaj bi ci tege mbokk mi laaj ne koo xam ne dafa sengewu mooy mas naa am soxna buñ naan buñ waxee ne bu moyee yàlla dañ koy rey gan mooy yàlla lañ ci jublu waaw mooy yàlla gi ñu jublu mooy njaalo mooy sëy ci sawukaay njaalo waaw maa bànneexu ci jigéen ñi ci kaw kooka xaram na bu fekkee jigéen ñi takku ko xaram na bakkaar bu bon la waaye nag njaaloo tax ñuy wax njaalo moom mooy eh, sëy sëy ci sawukaay lañ ci jublu boo ko defee rek njaalo ko sax na kon atteem buñ doon atte sharia te sartee daje dañ koy dañ koy rey sànni xeer ba faatu mu ne kook mu ne kooku nag bu fekkee daa njaalo nga ne atteb sharia mooy buñ doon atte dañ koy rey te reyuñu ko ah, ginnaaw ba bu faatoo ndax dees na ko miiras miiras ah waaw ko mi rek moom bu faatoo atteb kuy dund daal lay yore lu ñuy defal kuy dund rek dañ ko koy defal ah, duñ wax naan ah, li ñenn ñi wax naan moom kat am néew la ndax bu buñ ko rayoon kon du am xaalis nangam loolu waaye waaye reyuñu ko kenn du laaj lu amagut buñ ko rayoon waaw kon du dund bay am xaalis nanga waaye reyuñu ko même buñ ko rayoon sax dañ koy doon ndax du ab yéefar ab jullit la même bu ko sariya rayoon it ci jamono joojee mu njaaloon dañ koy doon ndax ab jullit la néewuñ ab yéefar la waaye buy dund atteb kuy dund la yore rek duñ bàyyi xel naan kii waroon nañ ko ray ak nangam déedéet moom ñëpp a yem rek day tuub dellu suñ borom bu rëccoo rek suñ borom jéggal ko ko wallahu aalamu bu ko neexee laaj bi ci des mbokk mi laaj eh, foo moomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere woon muy allaaxibu bi nard eh, mu ne ndax mooy lido déedéet bokkut ak lido nard ni ko boroom xam-xam waxee foo la woon moo xam ne benn buur moo ko fentoon Euh, xeetu carte loon boo xam daa amoon ay pas-pas yuñ cay gëm euh, xam naa daal fo xeetu kart yi ñuy carte di toog di toog ci taabal yi la gën a nurool di bés ay pion yooyu la gën a nuróol euh, nun nag teewul xamuñu dëgg dëgg nag luy nar bi yonent bi teeroon daal taxut taxut ñu xam ko moom ne la bii la waaye daal noonu la ko borom xam-xame misaale waaye daal bokkut ak yii xew moom daanaka waaw waaye yii xewit lu ci nekk am foox dañ gis ne amulul njariñ sariyaxa sariyaxa nee amul njariñ a xaqiqatu laabi kullu laabi qad manaat minhu sariatu nabi mépp foofu moo xam ne sariha gisu ci benn intervention julli bi mënu caa jariñoo dara rek sariha da koy tere donte amul carte amul dara bu amee carte nag mu xaram moom waaye ndax passé gi nga ciy passé sa temps ak yem mën a jur yeneen rek te amul benn njariñ du sa diina du sa adduna subaa moom lislaam da koy da koy tere wallahu alamu alhamdulilah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj ne menn mbokk dafa dem ci ab sëriñ di ko ñaanloo ci jigéen jum bëgg a takk ma jigéen ju bëgg a takk lu ci jar ñaanloo nee na sëriñ ba wax ko ay mbir ba ne ko daal faaw nga tuur deret <laughs> muy laaj ba xam waaw wax dëgg yàlla ba ko wóoloo ba dem fa rek manoon naa continuer yëfi boppam nit ñi dañuy dugg ci tooxi doon ba noppi wëlbati di laaj laataa nga fay dem nga waroon a laaj waaye dugg ci am mbir nag ba am ci ay jafe-jafe wëlbatiku nag doo ko laaj naan lu may def ak nangam comme yow yaa ko wóolu ba dem fa kay dëgg yàlla jëfandikoo woon na yonantu ba sallallahu alayhi wasallam jàngale woon na nga jëfandikoo sa bopp sa xelum bopp kooku nag loola dal yaatooñ sa bopp man kaana jaahilan bi fardihi walam yasal fa nafsuhu abada wa walam ku xamul ba noppi jekki-jekki tëlëx tëlëxi def kooku yaatooñ sa bopp waaw loola xam nga yëfi ceeb la loolu xam nga du yëfi lislaam jigéen joo bëgg a takk rek nga dem labat ñu may la ak nangam xanaa boo ci ñaan sax nga dem ci nit ku baax jànkatu alxuraan wala nangam ah na nangam kat dama ko bëggoon takk nga defal ma ci ay ñaan ah, suñ borom bo eh, sottal diggante ak yu mel waaw dem ci sëriñ muy def ay gàllaaj def ay nangam ndax lan damaa bëgg takk jigéen loola xam nga ne xel nangoo ko faaw rek mbirum ceddo la mbirum jab waxantuma nag mu naan dama ciy tuur deret kooku moom eh, tabaarkàlla lu baax moom taxatu koo jóg maanaam daal lu jaar yoon loolu daal moom l'islam moom génn génn na ca loxoom mbirum ceddo la day mel daal daa bëgg a njabar jigéen nga nga takk ko ta loolu dafa xaraam kooku moom dëgganut yu mel noonu nag képp ku ko def jigéen boo wëttandiku suñ borom dan la ko fay sax njaboot benn nga am doom ju jigéen ñu def ko ko wala ñu def ko sa rakku jigéen wala yu mel nangam nit ki buy leble na xool li muy leble ndax bëgg na ñu fay ko ko rek loolu daal yomb na yomb na lool wa kun kama tuhibbu an yakunu maaka jël jigéen yóbbu ko ci ab sëriñ muy ñaan da tuur da ngay def nangam est-ce que boo amoon doom bëgg nga ñu def ko ko déedéet boo bu jigéen déedéet lu tax nga ko di ko def ab jàmbur lu tee ni nit ñi ñaane jabar mënoo ñaane noona dem dama laa bëgg nangam dama laa bëgg a takk soxna caaxaanuma bu d'accord demal ci ay waajur dem say waxtaan nangam bu la neexee nag boo nappee boo jullee nga ñaan suñ borom sëy bi bu gënee yàlla na nga ko jàppandal dem ci borom xam-xam yi xam maa dem ci sëriñ fay xaalis mu naa la tuural deret loolu faaw rek am na yëfi ceddo yëfi njabar yu ci dugg kon na bàyyi loola te dem ñaane jabar ci saahir def ay ñaana wala nit ku baax ku xam xam nitu yàlla jànkatu alxuraan jànkatu xasida borom turu yàlla incha allah mu ñaanal na ko ñaanal ma ci bu gënee waaye nit ñi léegi dañuy fipp bu ñuy takk soxna dañuy fipp farfoos dinaa ko takk farfoos dinaa ko takk noonu la ñuy def ah, amut léegi nag boo ca dogoo te fekk gënu teew mën naa boo ko takkee faatu mën naa boo ko takkee nangam te dogu nga ca nee nga faaw da ko def suñu borom dalay bàyyi nga def ko dajeek la nga ca war a dajal waaye bàyyi yàlla tànnal ko donte lii de bëgg naa ko la man de tukki bi bëgg naa ko lool waaye suñ borom xam ne gënut mu teggi la ko nga nangu daa li tax amut day suñ borom xam naa ne lu gën ci man rek la def waaye nit ñi léegi duñ def lool dañ naan far force moo tax it liy xew di xew rek dugg ci dara gis ay tooxi doon yu bon kon kooka na dellu lépp loo xam ne xam na ne bëggul ñu def ko doomam bu jigéen bu màggee ba am doom wala rakkam bu jigéen xam na ne bu sañoon kuy takk rakkam da ngay ñëw ñaan ñu may la waaye doo bu ay sëriñ mun naa la ay tuuraal ay deret loolu mu mbirum ceddo la sëy bu ca tuur deret àggee rek nag eh, ngir takk soxna mbir la laaj bi ci tege mbokk mi laaj jigéen joo xam ne dafa am jëkkër ba noppi di mooy yàlla wala iyaasu billah yàlla na ko yàlla gindi yàlla na ko yàlla defal tawfiq mu jóge ca loola te nangu koo tuub te yàlla jéggal ko ko ci ak mbaaxam waaw loola day njaalo rek la njaalo te sengoo mooy wax nañ ko léegi eh, ku am jëkkër wala nga am jabar ba noppi di ko def bu ñoon àtti lislaam dañ koy rey waaye nag même bu ñu àttiwut lislaam li gën a bon ci njaalo rawatina bu dee jigéen mooy day yàq sa carrière da koy tilimal imagine mu am ay doom jàkkaarloog ñoom mu wóor ko ne moom mi amel na ak doom yi ndax yaay day amel ak ay doom da leen amel ak képp koo xam yaa ngi def jëf ju salte ju bon joo xam ne yaa ngi tilimal say sa deru ay doom say doom màgg ñu la seen yaay de moom tabarkaal la nga ne yaa leen teg loola kooku da ko ko layoog ñoom kon kooka na xam ne bànneexu sëy bi ngay am ci ay juróomi ak yu mel noona jërut bàkkaar boo xam ne dalay topp sa bàmmeel boo demee sa bàmmeel fekk ko fa boo dekkee yomal xëyam fekkaat ko fa bu ñu lim way njaa way njaalo ya boole la ci sa deru doom yàqu sa àdduna boo léegi fu ñu la tudd tabarakàlla ña ñaxam moom dañuy xam ne diw de daraa taxawaal rek dara àdduna jëru ko kon ku nekk ak sa jëkkër boo ko bëggut bu fa intérêt bàyyi geddal lépp loo fa am coowal nit ñi lu mën a wax génnal ca loola ndax mooy yàlla moom jërul dara bàyyi lépp bàyyi tas sëy ba eh, ak lu ca mën a xew sa njaboot gi nga fi bàyyi sa nangam déedéet loolu lépp ñàkk mooy yàlla moom moo ko gën kon nag jógee ci sëy ba dem nekk ak kam bëgg di sëy moom moo xam ci néegu ñax la moo xam sumbi lay lekk moo gën nga nekk ci kër jàmbur mu di la traité yaakaar ne yaa ngi ci jàmm nga di ko war dem di seeg geneen góor loolu àdduna ak àllaaxira jëru ko wallahu taala alamu sawaaba laaj bi ci tegee mbokk mi laaj jigéen ñi nga xam ne dañuy jàng alxuraan ci xeetu concours yi te di ko jàng ci kaw boroom xam-xam moom dañ ne jigéen di yëkkati baatam ci kaw di ko jàng dañ koy tere ak lu mën a jàng même bu dee alxuraan la di ko yëkkati ci kanamu aw góor dañ koy tere bu fekkee nag dañ caa ragal fitna moom dafa xaraam dañ caa dañ caa ragal fitna waaw concours yi ñoo mook julli lu gën a foor nga ne julli amul werante lu tax julli ñu ñu tere ko ko ne ko boolu yëkkati bu fekkoon ne jigéen kay dagan na mu yëkkati baatam jàng alxuraan dañ koy def la ci julli waaye ci julli dañ ko koo tere bañ koo teree ci julli rek léegi amatut concours amatut dara kon loolu moom gënut ah donte nag concours yi baax na ak nang waaye daal bu fekkee ne mën nañoo góorgóor ba mu dëppook sariya ni ki fañ koy defee ay jigéen a fay nekk wala yu mel noonu wala góor ñi duñ ci mën a agsi góor ña ci góor ñi jigéen ñi ca jigéen ña loola daal moo gën waaye nag xëy na bu ca bànneex amut xëy na mën naa bañ a àgg ci xaraam mën nañ koo sip wala daal yeneen atte am ca waaye daal xalal ixtisaar ci tënk daal euh, xulaasatul kalaam daal mooy jigéen di di baatam ca kaw ci ca teewaayu ay góor rawatina di ko neexal lislaam da koy tere kooka lu mën a jàng ndax bu daganoon ñu may ko ko ci jaamu yàlla yi te mayuñu ko ko sax ci jaamu yàlla yi waxuma nag ci leneen laaj bi ci mbokk mi laaj ni olof yi wax boo tislee ñu ne seede yàlla ndax loolu waxi olof la wala lislaam a ko wax déedéet du waxi lislaam lislaam nag waxut loon nit ki mën naa wax lu dul dëgg sax tasanteeg am ko tisli hmm. su boobaa kon ñu ne wax na dëgg fekk te dëgg-dëgg la muy wax dara du ca dara du ci dëgg incha allah kon tisli moom jutawut ak dara wàllu seede yàlla seede wut loolu wallahu taala mbokk yi lii moo jotoon na dajaloo ci ay laaj hasa wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain inna dunnu illa dhanna wa ma nahnu bi mustayqinin lépp lu ci jub te rafet ci ta baax ci rek yàllay kese kese ci coobareem rek la ko defee la ca dëng nag te ñaaw ca ca ñàkk caa mat te juba di te maanaa ma jubut wala léerut loolu nag mi ngi bàyyi ko fi ñun ñi di matat ak doomu aadama yàlla jéggal na ko boroom xam-xam bi jéggal ñu ko in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbi ajmain bismillah mu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj koo xam ne dañ ko yónni ay bagaas ay bagage ne ko ci misaal ñu ne ko ñu ne ko wutal ab burwet jox ko téeméer ne ko nanga ko fayee téeméer boobu nga sëf ci bagaas yi yóbbu ko barab nangam far yàlla dogal ab xaritam aal ko borwet muy laaj ndax téeméer bi da koy da koy dagan téeméer bi du ko dagan ndax téeméer dañ ko yesantoon na ci paas na ci jël borwet ngir bagage yi léegi am mën naa am borwet nu gën a yomb nañ ko waxoon su boobaa moom ndaw rek bu defee ne loolu daa tax mu dagan alal kaay ma la bépp alal boo bëgg laaj ndax dagan na la wala daganu la mënta génn yi benn dañ la koy may moom est ce que may nañ ko déedéet may ñu ko ko de wala dañ ko koo da koo jënd dafa joxe dafa joxe alal dafa joxe matériel ñu jox ko alal ja maanaam daal da cee commerce wala mu business ci moom defut loola déedéet moom dañ ko yónnee rek bu fekkoon moom ci boppam daa yor puus-puus ñu ne kon jëlal sa puus ba nga yóbbul ñu lii mooy fay gi kon dagan na ko waaye moom dañ ko yónnee te ba mu demee lañ ko yónnee amut dañ ko abal kon lay ak maalu mooy mu dikka na man de léegi mooy ba ma demee dañ sama xarit sax moo mujj àll puus-puus téeméer baa ngi nii buñ ko ko mayee mu doog a xam may nañ ko kon mayuñu ko ko liggéeyut ñu fay ko ko newuñ ko la sab salaire la wala alal ji da koo donn moom donnu ko wala boog dañ ko koo dañ ko koo lebal xeet yu mel noonu noonu la amee alal ñu ne kii de am alal ji dagan na ci moom benn ñu may la ko wala boog muy sa xaq joo liggéey ñu fay la ko moo xam xeetu liggéey bu man noonu ci xeetu liggéey yi dagan wala nga doon ko wala ñu lebal la ko moom ci benn kon nag ku ñu yónni moom dañ ko yónni rek jeex na day doxe mission bi lépp lu ci xew daa war a ñëw rendre compte kon moom néewuñ ko jëlal téeméer bi ñu may la ko néewuñ ko jëlal sa borweet bi ñu fayee la ko néewuñ ko dañ la ko lebal néewuñ ko da nga ko doon na sa baay néewuñ ko dara dañ na ko jëlal def nangam ba mu demee loola amut na dellu si ne loola amut lool du ko dagan mukk wallahu aalamu am na yoo xam nag boo jëfandikoo sa xel da ngay defee ne noonu la waaye lislaam duxul ci xel day dox ci ak mu dee laaj bi ci mbokk mi ne day gis ay jumaa yoo xam ne ay jigéen dañ fay nekk waaw am na ci borom xam-xam yoo xam ne daganal nañ loolu nee nañ jigéen euh, bu dul waxuma sax juma waaye julli juróom nii rek euh, nee nañ dagan na jigéen def ko bu fekkee ne matale na sart yi mooy soloo na nam war a soloo teg teggi nii su ko defee bu góor ña nekkee fee jigéen ña nekk fee bu dee julli juróom nag la gën a wér ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam santaane woon mooy jigéen ñi di toog seeni kër di ko defee foofa mën nañu ñëw ci jàkka ji buñ ko def buñ ko defee te fekk amul fitna amul dara baax na de lañ def xaraamut waaye nag tuyaaba ja moom toogoon seen kër wéet foofa mu ëpp tuyaaba bu dee julli ajuma nag moom bu dee jigéen ju ndaw wala muy ab jeeg boo xam ne ragal nañ ci moom fitna day xaraam mu génn dem di ko defee bu fekkee nag euh, euh, soxna la soo xam ne nekk na mag li ñuy wax meer nga ne tollutul fu ñu koy bàyyee xel ci wàllu taar yu mel noona te boole ci waajut kooku su boobaa moom sopp nañu muy fekke ji jumaa yi ngir wut tuyaaba donte waru ko incha allahu rabbi wallahu aalamu laaj bi ci tegee mbokk mi laaj ne lan mooy di fen dëgg-dëgg ndax day gis léeg-léeg tuxal xibaar ñu koy tudde fen maanaam léeg nit day nit day ñëw ne yow kat la ma la waxoon dangaa dem nettaliku nañu rek dag maa fenal waaw fil xaqiqa nag ñaar yooyu bokkuñu fen moom moo demee ci sëñ Tuubaa xaqiqatul kadibi ixbaaru kama lam yaku saabitan bi xawlil ulama fen moom mooy wax amut kon ku la nettilil te lam la nettilil am na moom loolu du tudd fen loolu moom du tudd fen loolu moom xëy na da ko koo wóolu sa xibaar mu wor la wala da nga koo ci sa secret nga gis na kii mëtu mët mëtul a dénk secret waaye bu fekkee da ko wax dara ci misaal nga ne ko nangam mu dem na diw nee na nangam nga ne lam wax am na yaa ko ko wax loolu moom du tuddati fenn léegi nag mën naa nekk rambaaj bu dee ak jaxasa la ci jublu woon ne mën naa nekk koo xam ne day senn ab secret boo ko waxee sa secret mu nettaliwaat ko loolu ba tey baaxut waaye na dee su ko tudde loolu moom naqulul xadis rek lañ koy tudde waaye fenn daal bu ñu ko waxee moom mooy mu ñëw ne diw nee na nangam tey waxoo ko su boobaa loola lay doo ko tudd fenn bu mu ci mën a doon nag yooyu benn baaxu kon bu dee koo xam ne day nettali kooka moom matut ab àndandoo ndax mënta denc secret ko arab yi di waxee eh, eh, sudurul ahraari xuburul asraari nee na gor yi gor yi seen seen dënn mooy bàmmeeli secret yi as gor dëgg-dëgg lépp loo ko nettali da koy yóbbaale bàmmeel kon nag loola baaxut waaye nag fen daal mooy wax loo xam ne moom daa amut kon lu olof yi wax dag ma eh, li ma la waxoon nga dem ca diw fenal ma ko loolu moom du fen bu dee yàq ko wax bu dee lépp dëgg la am na waaye xëy na day sa secret boo bëggutoon loola xëy na Euh, bañ a téye xibaar rek la di seen ay xibaar rek la yàlla na ci yàlla musal du jikko ju baax ci doomu aadama rawatina rawatina ab àndandoo wallahu aalam